ñun ñëpp bëgg ñun ñëpp ay xarit lañ gars yi ñoo leen gën doon ay nante ñoo leen gën a ñeme gën leen nekk der bu ñu boolee doole yi rek gars yi duñu am dara lii nii lii lan lay euh, wane ci Fass lii victoire tey benn non mooy trois points oh. dama ko ma fenn Moussa des na mais na ponk na gars yi nañ bàyyi grand yi ñun ñu jëflante seen comme kan xam nañ seen bopp tappale bi nañ ko bàyyi ci làmb ji les les champions les jar les coréas nañ leen boole ci làmb ji bañ koo def a affaire business band yi nañ leen ci boole ndax suñu sport bi am niveau ku ko seetaan xam nañ ñii c'est des gladiateurs tey combat yaa ngi nii jël ay coups mu saf sap ba yàlla dogal li muy dal waaw kan moo ci des Safia kan moo ci des. bu ñu la waxee Franc bu ñu la waxee Franc tey mooy sa dernier looy wax si moom. waaye meer Ngiraan meer Ngiraan meer Ngiraan yàlla na yàlla guddal sax waaw ah, parce que man sama yaay mooy sama premier sponsor sama premier sponsor boo xamante ni pour moom ba léegi démb laa judd barke alxuraan karim wala yàlla na ko fi yàlla wàññi samay at jox ko ko bu ndax mu dund waaw ñi naan Franc ak Gris 2 duñ bëri nag waaye gars yi mbër lamb ji dafa bëri politique léegi ku nekk lijjanti nga sa promoteur man nag aw ma reporter aw ma promoteur aw ma kenn ku ma jàppale sama doole ak sama fit ak sama jom moo ma bàyyi ci làmb ak écurie Fass bi ma nekk. da nga ne combat gladiateur ban gladiateur nga bëgg. waaye yeneen gars yi tappale jàpp mag yi ñu leen di jox ñuy noos. Franc nga bëgg a wax. ñëw di ngan waaye ku dul man. waaye rek rek nga bëgg a waxaat. Ah? lijjantiwuma kenn. billaay walaay mu ne man dama demoon ba bàyyi làmb dama demoon ba ne lii daal sa waay daf lay tardel rek. xam nga a trois ans ngay def ay exploit jóge ci victoire la au frigo trois ans doo bëre ci xale bu ndaw loolu day loolu du sport léegi nag a décidé damaa décidé dama war di bëre chaque année comme samay morom parce que a ñàng fuuf ans. bi laa wallaahi ans. dara. ans. Ah, dañ doon wax droit ans. bi jël ñun ay dugg Gris Bordeaux mi ngi dem di bëri ji loo koy wax ci comme digganteem ak Ama Baldé kooku moo ñu tàggat c'est notre maître kooku bu ñëwoon fii si stade bi arbitre sifflé mu tëdd jour boobu dañu koy yëkkati gën koo tungëp parce que kooku esprit la def su ñun esprit sain ñi mm. gën a jaxe si doomu aadama mm. mooy def si nit mental ne ko doomu aadama dara waru laa jaaxal lu ne lay dégg ci àdduna vingt cinq ans de carrière la def mais il est résistant am fulla am personnalité te loolu la def su ñun wala ñun ay affaire am bu ma déggee ñu naan da nga bëgg Gris Bordeaux da nga bëgg Gris ku ko xam bëggu ko xanaa ku ko xamul waaye ku ko xam bëgg ko ndax gaynde la te booy Medina la wax waa Medina na ñuy génn di ma jàppale bu ñu bëggee man laa wax billaahi li gars di am bu ma ko amoon ba léegi couronne bi gis nañ ko Medina non man du ma bougé man man dof laa man xaw ma lu sedd ak lu tàng. waaw kay.